Sénégal 4 TV yow yakum. ko ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi vous bul activer activé walla cloche de notification bi de ngir bañ tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi et maintenant. bon visionnage boobu Cheikh Sarr foofu dafa sori gis nga ba mu daanee Sa Thiès ba mu ko duumaa daan ko ñëpp teg ci seen bët booba la waroon a jóg ne amul feneen loo xamante lu muy def yow am nga sa rak mbër mi di la dëkk nga naan bala maa bëreeg man xanaa da ngaa bëreeg sama rak xanaa ba day nangam nangam nangam mu nga jël sa avance rak ci sa loxo mu daan ko ci sa kanam booba la coow la jeex. waaw loolu nag loolu nag xam nga bërëg bala gay di nga am xaalis bu bu bare macha allah xam nga léegi nag gars yi bu ñu demee ba combat boobu ah gars yi ñu koy wax muy waaj taxaw ñu jël xaalis boo xam ne mënul préparer komba sax xam nga nga nga fay ko Boy Niang nga fay ko xaalis boobu boo xam ne même Boy Niang bu amee ndam sax du denc dara quoi ci kontam kon loolu amal ni ko njëriñ boo demee bay bëre ay ñoom ay ñoom Balla ay ñoom Modou Lo da ngaa war ci am xaalis waaw même bu combat bi passé sax di yor xaalis boo xam ne macha allah. damay ragal ne comme Balla Gaye moo war a maye sens te mayewul sens boo moytul Boy Niang may tàllal ko loxo de waaw làmb dafa garaaw de Boy Niang boo moytul mun na ko tàllal loxo de daan daan tafaatin ba pare tàllal ko loxo ne ko kaay mun na nekk de làmb la de grand. te xam nga tamit koo xam ne dem na dugg na ci ci seen gox xam nga presque jeexal ñëpp ah kon noonu la mun a demee rek. comme Balla Gaye mooy champion le champion le nuñ koy waxee sax le lion de Guédiawaye léegi léegi comme moom jëflante na ak ñëpp ba mu des le lion de Guédiawaye loolu moo taxoon mu soxla lion bi rek xam nga. <laughs> waaw nga am may chance ci Balla Gaye lay neex bu neexee Balla Gaye mu may Boy Niang chance bu ko neexul lu ko may chance mbir mi foofu la toll voilà Balla Gaye neexu ko mu may ko change te Balla Gaye bañut Boy Niang moo bañ. yaa fee nañ ko ay soixante cinq millions mu bañ lu tax jëlu soixante cinq millions yi combat ma ak Tapha Tine ñaar lañ ko fay c'est ça le ñaar ñaar lañ koy fay ñaar lañ koy fay. ñoom contre Sa sax moo leen gën a tiital Balla Gaye moo jël combat contre Sa dégg naa dañoo am problème waaw Balla Gaye moo jël combat boobu moo jël avance boobu moo jël combat bi dara luñ mënoon yëpp ak fuñ xamoon yëpp dugg nañ fa. ñee ngemb Sa Thiès ak ñee ngemb Balla gay ñoo ko ñoo ngemboon Sa Thiès andi ko dara booy Niang tër ko combat boobu waxuma Balla Gaye dina ko jël waaye da xool bañ na ko ok mu soog ko jël de waaw xam nga nag mbër di nga gis benn combat gars yi di wax nii di wax nii ñoom ñu bugg ko tëgg dañ naan nañ fay booy booy bi lu tuuti booy bi du bu d'accord ñu dem seeti keneen parce que booy bi du ko d'accord loolu tax. loolu mooy la pour nga pour nga daw combat bi la rek bañ ni ñi xam mais Balla Balla Balla nekkatul Balla de. bi muy dëkk yëkk bi muy boole ak Yékini kenn ñemewul loon Yékini ñëpp kenn ñemewul loon Yékini ñi kenn ñemewul loon Yékini Balla Gaye moo ñemewoon Yékini waaw ñu ñaari jël la ko daan ci benn takkusaan ñëpp gis na loolu. man gis nga dëkk dafa sori Balla Gaye bu mosaan am combat boo ci waxee génn rek. wax ci rek boo ko ci defee am nga problème waxuma nag sax nga koy dëkk Balla Gaye mosut moo yow Balla Gaye Balla xam nga ne bu toogee fii boo ñaa di ko awti awti ci làmb ci ci digg géew bi ci digg eh, Sénégal ah, jëlu ko war ngeen xam ne kii da koo mënta naan liñ am yëpp dañ koo def mënuñ ci booy ñaar dara moo tax mu delloo avance boobu dem xooli lu nooy ñoom liñ am yëpp seeni sëriñ ak seen lan am yëpp dañ koo def ci Sa Thiès ak Lac de Guiers mënuñ ci booy ñaar dara moo tax ñu xam ne kii mexoor mooy bàyyi ko fi buñ fi buñ buñ ko bu jéemoon dara non Balla Gaye nante la yow. <laughs> non loolu eh, père père nekkul loolu xam nga rek ñoom dañoo bëgg ba rek Balla rek loolu la dañoo bëgg ba rek Balla rek comme Balla Gaye def na loo xam ne boo ñaa defu ko kon bu rek Balla rek am dara la am dara la waaw ñoom dañoo bëgg rek Balla Gaye may ko sens loolu la rek. loolu la rek dañoo bëgg Balla Gaye may ko sens quoi xam nga comme Yékini ni mu maye woon bala sens Tyson ni mu maye woon Balla sens booy may bala gay sens kon loolu moo tax waa kër Boy ñaa bëgg bala gay may ba kii Boy Niang sens loolu la rek loolu moo tax waa kër Balla waa kër Boy Niang bëgg Balla may Boy Niang sens waaw laamu noonu la laamu noonu la bindoo. waaw maa ne moom fii xanaa lam eh, eh, ubbi nañ ko CNG joxe naa accord kañ lañ koy ubbi am naa forme amul forme waaw xaar nañ ba mu am combat lu tax Gris bu ga delloo avance bi moom xam na ko di koy xaar moom xam na waaw lu tax muy avance bi nag waaw moom de fi mag ñi toll woon ah, ba muy bëreeg mag ñi ah fa de waaw fi fi booy ñaa toll nii di ko laaj foofu la toll woon di laaj Tyson fa la toll woon di laaj Yékini fa la toll woon di laaj Baboy fa la toll woon di laaj Tafa Gueye waaw mu ngi noon de kon nag moom buñ ko ko gaa yi nangulee rek moom na ko nangul gaa yi waaw Balla Balla bu wóolu woon boppam dëgg ba Balla mbër mu ko dékkan mu bëreeg yow waaw stap bi laa jël leen combat bi wala ma jël ko bëri mais léegi def loolu de léegi staff lay déglu c'est grab waaw ah, ma ne Ousmane Boy mu daan fii man lu mu def ci lamb bi Boy Niang lu mu def prouvé wul dara Boy Niang lu mu def ku fi daan saa kees la daan daan guy daan lees waaw ñoo ñëpp anañu xanaa saa kees moo am combat gars yëpp ak guy gi ak kan la daan dictionnaire yi kan la daan ba daan na Yékini daan Babey. Eh, Tyson Moustapha Guèye Modou Lo waaye ku daan ñaar juróom yi jeexal jeexal nga lam non Balla ak Tyson bi combat bi jeexee mu bëre ak Baboy jeexal na gaay yëpp Yékini rek moo bi ñu laajee Yékini interview bi Yékini ne man fi ses waaw Balla Gaye aja. acca sa waay loolu yëpp nangul nañ ko ko parce jamono da koo mënan mais jamono yi ñuy toll nii da koo mënatul yaa may dégg loolu lépp nangul nañ ko fi def def na fi lu ne ci def nañ ko fi lu ne tamit comprendre nga làmb de yow yow yéen da ngeen dul comprendre da ngeen a foog ne làmb moom nit da koy téye ba faw dafa am momento boo xam ne bu ca ya yemee da nga boo rafetal boo ko deful di nga ñaaw ak nit ñi te du tee nga jóge fi loolu mooy affaire bi làmb day toll foo xam ne say guddi lay doon kenn mënu laa téye mais guddi yooyu boo ko boo ko paasee demul toog. waaw bëreg Balla Gaye am dara la ci moom xam nga bëreg Balla Gaye daan ko loolu am dara la ci Boy Niang xam nga mais nag loolu laa Balla Gaye di bañ am dara boobu Boy ñaa war a am ci moom loolu la nanguwul. xam la su dee tamit dafa nangu nangu na waaye kase bi biñ ko fay tamit xam nga préparer Balla Gaye te am na loo xam ne boo ko fayee boo ñaa mooy ko ñëwal ñu dal la xam loolu la rek ñëwal ñu dal la xaw nga kon am na loo xam ne waa ji du booy bi du ko nangu waaw booy bi bëgg na bu rek moom parce que Balla Gaye li mu def ci làmb boo ñaa defagu ko kon bu rek Balla am dara la. non Balla ak Tyson bi combat bi jeexee. mu bëre ak Baboy jeexal na yépp yëpp Yékini rek moo fa nekk bi ñu laajee Yékini interview bi Yékini man maa fi sees waaw bala ngeen naa ca sa waay loolu yëpp nangul nañ ko ko parce que jamono da koo mënal mais jamono yi ñu toll nii da koo mënatul yaa may dégg loolu lépp nangul nañ ko li fi def def na fi lu ne ci làmb def nañ ko fi lu ne tamit comprendre làmb de yow yow yéen da ngeen dul comprendre da ngeen foog ne làmb moom nit da koy téye ba faw làmb dafa am moment boo xam ne bu ca yemee da nga boo yoboo jéem a rafetal boo ko deful di nga ñaaw ak nit ñi te du tee nga jóge fi loolu mooy affaire bi làmb day toll foo xam ne say guddi lay doon kenn mënu laa mais guddi yooyu boo ko boo ko paasee demul toog. waaw bëreeg Balla Gaye am dara ci moom xam nga bëreeg Balla Gaye daan ko. loolu am dara la ci booy ñaa xam nga mais nag loolu laa Balla Gaye di bañ am dara boobu boo ñaa war a am ci moom loolu la nanguwul xam la su dee tamit dafa nangu nangu na waaye kase bi biñ ko fay tamit xam nga préparé Balla Gaye te am na loo xam ne boo ko fayee boo ñaa mooy ko ñëwal ñu dal la xam loolu la rek ñëwal ñu dal la xam nga kon am na loo xam ne waa ji du booy bi du ko nangu waaw booy bi bëre bëgg na bëre ak moom parce que Balla li mu def ci làmb Boy Niang defagu ko kon bu rek am dara la. waaw Ousmane yow mi kon Ousmane merci beaucoup Ousmane comme yow mi kay xam nga ne mu yow dégg nga bëgg waaw yow wax nga dégg bi de Boy Niang xaalis la bëgg waaw waaw moom yu ci war ko de xaalis la bëgg bu jëlee ko maamam ak Balla Gaye xaalis la bëgg bu ci dara du yu ci xaalis la bëgg tur bi la génne waaw. yow yow xam naa ci fanatico yi nga bokk quoi yow moom yaa ngi noonu rek mais Balla Gaye Balla xam xam na yow yaa fi ne di wax nii rek yaa ngi lay téye <laughs> Balla Gaye xam na lu muy def de saaru supporter yu mel ni yow ak layti moom Balla Gaye soxla mu ndax xam naa ne fi ngeen koy dugal dugal arrangé wu. 50 millions dafa neex de mbër yëpp ko bugg a bëre billaahi 150 millions kër gu mu dugg ba pare ngay am jàppale da ngay bëre ba pare teg 100 million nële. da ngay da nga ciy jënd terrain tabax ko waaw eh, dafa neex de waaw da ngay cent cinquante million ba pare am ñu la jàppale ah loolu dafa neex waaw dafa neex de mbër yëpp ko bëgg a bëri